bañ mu ne àdduna jooju nga xam ne dafa xeebu lool ñàkk solo lool waaw ki nga xam ne mooy borom milla bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di àdduna def ko muy dara dafa daan ñaan yàlla sax naan ko allahuma ahyini faqiran wa amitni faqiran wa axshurni yowma alqiyamati fi zumrati alfuqara yàlla yàlla na nga ma def may ku ñàkk fii ci àdduna ci sama dund bu ma faatoo itam ma bokk ci ñi ñàkk yi ëllëg yowmal xiyaam kuréel ya ñuy tuddee ay fuqaraa ma bokk ci yonent bi alayhi salaatu moom eggoon na ci di ñaan yàlla loolu ngir woyefal gum woyefal àdduna ak sobental gum sobental àdduna firiwul nag ne àdduna dañ ko war a sobental àdduna mooy yoon wi ñuy jaar ba dem alaxira fii la ñuy liggéeyee lépp looy am ëllëg fële fii nga koy liggéey lépp loo xam ne moom moo lay dugal ajjana ëllëg fii ci àdduna ji nga koy wut sa fàggoo boo ko fi fàggoo boo demee foofa doo fekk dara kon néewuñu àdduna dafa ñàkk solo ñàkk solo gi mooy nga jox ko lu mu moomut maanaam nga yóbbu ko fu mu eggut loolu lañ ciy wax mu dem ba dominer la mu ne fa fikratun fi qissati alqadri wa fi fanaiha ayna jamiu salafi ne bëgg àdduna bokk yi koy faj ordonnance bi koy faj mooy lii ma lay bëgg a wax fikratun fi qissati alqadri maanaam xalaat ci diir bi nga fi am ni mu gàttee téeméeri at sax bokk ko fi amoon gàtt na ñaari téeméeri at boo fi amoon gàtt na ndax fa muy mujj rek mooy nga faatu mu jeex xalaas boo faatoo jeex wa fi fanaiha booy ngay xalaatit ci ne àdduna day jeex yàgg-yàgg day jeex loolu it ki bëgg àdduna bokk na ci feebar la boo xamante ne bokk na ci li koy faj mooy di xalaat ne àdduna day jeex ay na jamiu salafi ñi la fi jiitu woon ñëpp ànd ñu ñëpp ak ci armée yi boo demee ñu fekk leen fi kon loolu bokk na ci liy faj ak bëgg àdduna ci nit te it ak faj bari na lu muy bari na lu nit yàqule ci diggante ak boroomam mbaa àdduna yi kese ji sax nga gis koo xam ne daa bëgg àdduna ba àddunaam ci boppam du mën a jàkk bu nit ñi xamee ci moom rek dañuy dem ba ñëpp dañ koy wat waaw ndax foo ko fekk day nekk benn waay boo xam ne ab fexekat lay doon ab naxekat lay doon euh, nu mu amee rek lay seet nu mu amee rek nu mu nekkee ci kaw nit ñi rek lay seet loolu ku mel noonu sa àddunay bopp jii sax da lay yàqal nag sa mbirum alaxira wa ayna ma min al urudi jamaau wal ayni wa niami baadu jumau mu ne nga xool àdduna ñi fi doon dajale liñ fi doon dajale ci ay wërsëg ci ay marchandise ci liñ fi doon dajale yépp anon ah jeex na takk dangay toog fii ñu ne la ah diw li amoon ci alal fii ci département bi de walla ci région bi de moo fi ëpple woon lu ne amoon na ko moo moomoon dëkkër gi moo moomoon lii moo moomoon lii yooyu yëpp day mujj da nga koy fekk muy ay kër yoo xam ne rek janax yaag muus ya màggat na nit ñi soxlaatuñ ko dëppootul ak sax jamono bi fa lañ koy bàyyi sag njaboot sax dootuñ ko soxla wala ayni wan niami wan naami alal ji nga xam ne moom nga dencoon it anam fu mujj li nga fi amoon ci ak jur anam fu mujj baadu jumaaw yëpp jeex waaw boo xoolee fii ni juróom fukki at yi nu weesu rek soixante ans yi ñu weesu wala soixante-dix ans yi ñu weesu fii ci biir tubaab nga xool ñi fi ëppoon alal ñun xam nañ leen ñoom ñépp xamoon nañ leen waaye jeexit bu fi des boo xam ne da mën a wax ne lii ñoo ko moom man xaw ma gisuma bariwul lépp jeex donn nañ ko séddoo ko ña bañ ko séddoo doyu leen sax ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko doon doyu leen ah te it yoruñu jikko yi yi nga xam ne ñoom bu alal amee xase ba am ci famille bi alal jooju dootu fi jóg parce que dañ koy istismar muy màgg di màgg ba sët dikk jël ko sëtaat yi dikk jël ko muy continuer ba faw loolu ñun habitude boobu amuñu ko fii ci biir Sénégal moo tax alali Sénégal moom richard u Sénégal borom alalu Sénégal euh, bis bu ñu ko mirage rek xalaas jeexal na takk amatul leneen te it la ci ëpp itam buñ ko seetee day doon loo xam ne banque baa ko bu yàggul rek am na benn miraas bu moo nekkoon damaa mujj waaru ci yàlla kooku ku ñu xam la waaye bi ñu tegee miraas bi yàlla dogal na moom xëy na bu feree ijji it ci la yam ndegam fer na ijji it ndeysaan seen fer ijji la yem ndax la la koy wan mbind mi muy bind ñi ko yoreel ay bor mu di leen bind bind mu ñaaw la tey du neex a jàpp nga xam ne ñi ñii miraas daf ni mujj jaaxle ndax lii mu bind nii xamul te gisul kenn ku fi nekk ku nu mën a jubbanti na nangam la jublu ci lii loolu ay millions la xam ne noonu moom bàyyi kook yàlla bu seeni boroom ña nga xam ne ñoo yor bor bu ñu ragalee yàlla di ko fay ko bu ñu ragalul yàlla boo léegi yomal xiyam ñoo seen boroom kon yooyu yëpp muy uruud yeeg ay naam day jeex ba day jeex takk du jumaa yépp ay jeex ne loolu ki bëgg àdduna ne xalaat ci loolu wa annaar di dund fi sax da ngeen di dund fii ba faw yàlla diggu ko kenn diggu ko yonent diggu ko wàlliyu diggu ko kenn ku yàlla bind mosuñoo gis koo xam ne xaalit la toog fi rek di dund ba faw ñu jógee inna wattiraar xanaa kay këru ite yi dul jeex waaw walantaha arabun illa ila arabi loo noppi rek projet boo noppee ah boobu di sotti na beneen projet taxaw ci sa kanam walantaha arabun illa ila arabi foo noppee ci projet rek yaa ngi ci beneen boo xam ne mi ngi taxaw ci sa kanam waxtiraan foo toll itam am ay problème yu dul lii la àdduna àdduna itteeg yu neex yu dul faju ak naqar yu bari yoo xam ne benn du ci lijjanti nee na loo Sëñ Tuubaa nee na loolu mooy àdduna boo bëggee xam àdduna loolu la kon loolu nag jarul bëgg ko ba mu yàqal la dara moo tax mu ne fal aaqilu alladi naxaa daara alqaraar mujtahidan fii kulli leylin wa nahaar ne ki am xel dëgg boroom xel mi mooy ki nga xam ne euh, euh, naxaa daara alqaraar moom daal itteem yëpp mi ngi ko jëme ci ëllëg yowmal qiyaam mi nga xam ne day sax ba faw bu dee neex day sax ba faw bu dee naqari day sax ba faw xaalidina fiha abada mujtahidan fi kulli laylin foo toll rek yaa ngi farlu ci looy yóbbante alaxira ci loolu moo lay ittee mooy doon sa ittee waaye kër kër yi àdduna ji ba fàtte sa diggante ak sa borom loolu képp ku ko defit boo demee foofu da ko rëccu ama tamanni fa i'tiraduka ala mawlaak taslim te man nii mooy lan mooy daal bari mébét lool tey bu ma amoon nangam nangam de xaw ma nu may def am ko waaw diw de xanaa bu ma ko laajee dina ma war a mën a wax yoon wu may jaar loolu mooy ni nga xam ne foo toll loolu rek yaa ngi toppatoo ba xam gars yi fi fi ñu jaar ba jàll ngay jéem a seet fi jaar am na benn waaye bu bëgg xaalis sama benn xarit la bëgg alal lool ab ab intellectuel la mu ne ma man dama bëgg xaalis ba egg naa ci taarixul agniya dama moom rek lay jàng maanaam kenn ku ne foo jaar ba am alal waaw foo tàmbalee foo déparé foo yéegee ba xëy am ay milliards mu ne ma ñooñu daanaka man mooy sama liggéey moom ñooñu rek lay jàng di leen cee gis nga xam ne moom histoire yooyu rek léeg moom lay collectionné moom lay jàng waaw ma ne ah, xam naa da nga ba tey de. nga wëlbatiku di ko xam ba fu jaar ba egg fa kooku wàññiwul dara day tax a waaye nag bu la dem ba déranger la ba nga xam ne léegi daanaka loolu rek mooy doon sa ittee tal leneen ko ala maw taman ni mooy gaaral yàlla maanaam yàlla def ba noppi nga daan bu defoon nanga yàlla dogal ba noppi lam dogal yow ci sa bopp neexu la nga daan bu ko defee woon nii wala bu ko defee woon naa mu ne nga ne ko lu ma war def mu ne fas taslim li ma qad faala maanaam jébbal ko li nga xam ne moom la def rek lu mu def rek mu neex la ak mu naqari la nga nga nga bëgg ko ak nga ñàkk ko bëgg mu arrangé la mu ñàkk la lépp lu mu ci mën a doon jébbal ko suñu borom te ànd ci ak moom waaye bul ci jéem a def lenn loo xamante ne da koy gaaral fa la tastadri dahra ma tuqibuka a am sharrun axi yuhlikuka mu ne yow sama mbokk bi na xam ne xamoo sëg mujj luy mujj luy ñëw ëllëg doo ko xam xamoo ko xamoo ak ndax liy mujj aw yiw la am sharrun wala musiba la axi yuhlikuka moo xam ne day ñëw euh, alag la am annahu yusqituhu taala wala loole ngay mébét bu dee merum yàq mar mar détail amul solo loolu jëru ko ci loolu fa fawwid al amra lahu wal fabat sa mbir lépp rek bàyyi kook yàlla sabab lul te bàyyi ak yàlla sabab lul te bàyyi ak yàlla sa mbir yëpp boo ko defee rek noppalu boo ko defut dangay nekk fii ci ay coono yu dul jeex te dara du am nam la ko waxee woon ci gannaaw yàlla programme na lépp pare na ci lépp xalima yi wow na bind leen li war a bind lépp mënatoo ci dara waxoon naa leen ne nag loolu firiwul ne da nga naan ja ngay jaaxaan di ko xaar waaw Cheikhul Khadim radiallahu anhu defe naa ci sëñ Khadim Salim mi laa ko déggee mu ne daf daan wax soxna Fadja nafa bi barakatiha ne ko faati Fatimata mu ne mu ne ko lépp lu mat a ñaan ci aw yiw bu ngeen di wut ñaanal naa leen lépp luy ab safaan bu ngeen di daw ak di ko jëñ ñaanal naa leen ko waaye nag bu leen toog di xaar ñaan ci déedéet loolee ngeen di wut la mu laaj lépp ci effort ak la ngeen ci war a def lépp na ngeen jóg def ko ba mat sëkk bu ko defee bu ñaan gi dikkee yombal ko la ngeen di jëñ it naka noonu la ngeen ko war a defee lépp ak fàggute yi ngeen di war a def yépp def leen ko bu ñaan gi dikkee yombal jëñ ga waaye li ñuy bañ mooy lii xew léegi sëñ bi noppi na gaa yi di loolu la ñuy wax waaw ndax noppi nañ ñun waaw sëñ bi moom bu noppee ndax ñun noppi na moom de def na li ko war ba mu noppi ndax ñun li nu war noo koy def wala de waaw te nag dafa am lu nu war du jaageen bu sëñ bi noppee rek noppi noonu loolu bari na lu ñu koy wax te ñàkk xama tax ñu di ko wax amma dawaaul manni bil ataai faalam bi anna muuliya al itaai xaqiqatan huwa ki nga xam ne day def saa bu joxee alal wala bu la mayee balaa ëllëg ki si biir li ma la defal fi ma jaar ak yow loo am xam nga ne maa tax nga am ko loolu mooy man na nit koo xam ne lu mu defal lu mu defal doomu aadama aw làmmiñam a nga ca kooku mooy ki gën a gênant ci àdduna maanaam lu mu defal doomu adama rek aw làmmiñam du ci jóg mu ne nag li koy faj na nga xam ne kiy joxe kenn la da koo jaarale ci yow rek kiy joxe kenn la mooy yàlla yow da ngay ab lantinoor boo xam ne suñu borom dafa jaarale ci yow may gi waaye du caageen yow yaa ko jox boo ko joxutoon loola wër wërsëg ma dana ci jot te kenn du ci mën dara xaqiqatan huwa al ilahu fadla yàlla ci ngëneelam képp la def loola jaarale ko ci yow waaye loolu jëruta tëggu jëruta bàkku wa an nag wa anta waasitatu rabbin jalla yow daal ab diggale nga rek ab lantinoor nga rek boo xam ne dafa dox ci sa diggante ak moom waaye jërul loolu ndax nit loo def defal ko def ko ngir yàlla te man euh, lu bon la lu ñaaw la nit ku sew a koy def nit ku ñàkk solo ñaari moo koy def nit ki boo ko defalee ngir yàlla soxlaa tut nga di ko wax ci saw làmmiñ dëgg la bu ñu la defalee na ko wax bu ñu la terelee nit bu la terelee na ko wax waaye yow boo ko terelee daggal saw làmmiñ bu ko waxati bàyyi ko suñu borom waaye jëf ba noppi wëlbatiku tofal ci ay wax loolu nit ku am solo du ko def amma xamiyatun wa kasratul ghadab wa xiddatun wa dayqu sadrin bittaab fa hiya min axlaaqi fa hiya min axlaaqi shaytaanin la'iin aazana almuinu minhu kulla xiin ama xamiyatun mooy maanaam tàng jër naqari deret lool wa kasratul xadab foo toll rek di mer wa xiddatun nekk nit koo xam ne daal ku ne la kos rek nga tàkk wa dayqu sadrin ak koo xam ne xol bi dafa xat daanaka munta munta munta yaatul kenn bi taab fa hiya min axlaaqi sheytaanillahi sëñ Tuubaa nee na jikko yooyu koo ko gis rek mi ngi yor jikkoy seytaane naqari deret lool bari looy mer lool ku la kos nga takk sa xol munta munta muñal kenn nee na bi taxab dafa ànd ak coono yooyu jikko yooyu dafa ànd ak coono ba noppi fahiya min axlaaqi sheytaani rajim loolu mi ngi bokk ci jikkoy seytaane aazana al muhiinu muhiinu minhu kulla xiin yàlla nu ci yàlla musal mu ne lu koy fa lu koy faj lan mooy ordinance buy faj naqari deret kon ñun ñi naqari deret ak ñi naqari deret dépp nañ déglu Sëñ Tuubaa nee na lii muy bëgg a wax mooy faj naqari deret am na mag mu ma wax nag mu ne ma naqari deret ak dëggu bokkul nit ñi dëggu la ñuy tuddee naqari deret boo dëggoo ñu ne daal naqari deret boo dee wax dëgg ñu ne daal naqari deret dañu laa bëgg nga nekk benn waay boo xam ne rek mu xàffal nga boo xam ne daal yow dara du la ñor loolu moom nit ku nit nit ku jëm fenn du ko def nit day am nag personnalité am nag fu mu jëm am fu jëmal li ñuy àndal waaye nekk nit ku ñàkk fayda koo xam ne rek am yambar rek loolu loolu moom wax dëgg yàlla nag amul solo mu ne dawaauhu ilmun bi an laa fila xaqiqatan illa li rabbin jalla mu ne li koy faj ordonnance bi koy faj mooy nga xam ne kenn jëfut kenn jëfut kenn jëf mooy yàlla maanaam bu la nit waxee sax lu ñaaw wala mu def la lu ñaaw lu jar mer ne jëru ko xamal ne rek xay na suñu borom da koo jaarale ci moom waaye dogalu suñu borom bul mere sax kooku loolu nag wàccukaay bu sori la niveau bu kawe la du ñëpp mën a egg foofu waaye yàlla na yàlla yóbbu nag moo am solo laa fi'la xaqiqatan illa li rabbi yàlla rek mooy def nit ki deful foofu nag boo demee ci philosophie yeeg ñi nga xam ne dañuy wax wax nañ ci lu bare bare bare am nañu ci réer sax ñoo xam ne ci wax jooju réer nañ ci waaye daal jàppal ne lu am rek yàlla waaw amma iza btulita bi istijaali fadra bi dafcihi li zil jalaali li annahu yuqiu fi xirmaani wa saamin wa nadamin isyaani moom feebaru société bi rek lay wax feebar bi nekk ci suñu société bi masalik moom rek lay jàngale xam naa ko mel ni sëñ Xaadim si la nga xam ne analyste la boo xam ne moom baat bu ne mën na ko analyser indi la ci xew-xew yi ci am ci jamono ji yëpp macha allah moo tax façon niñ ko bëgg a firee bokkut man nii ma koy firee jàngewu ma ko woon ba ma koy jàng dégguma ko sax ba tey dégguma ko tey jii laa ko gën a ñàkk dégg la maa ngi koy jàpp moo gisoon ko ma ko jàngee léegi ma dem jàng ko ci moom waaw ba bisu tey maa ngi jàpp ne masaalik mi ngi nii ba ma ko jàngee ci ba may door a jàng alxuraan ba noppi boobu jànguma ko woon ndax xaw ma ko woon xaw ma ci dama dañ koo jàng xam baat yi rek bii ma egsee fii di ko jàngit di ko jàngale it maa ngi defe ne ba tey tey laa ko gën a réere waaw tey laa ko gën a réere bu ma gisoon ku ma ko jàngal waa joo xam ne nee na ah man de xereñ naa lool mën naa la ko jàngal billaahi tey ma dem jàng ko ci mhm. mu ne amma isabtulita bistijaali fadra bu fekkee yàlla daf laa nattoo ngay ku yàkkamti nit ku yàkkamti koo xam ne daal da nga presse lool lu ne rek da nga ko yàkkamti sa àdduna yëpp yàkkamti la fadra bi def dafehi li si jalaale ñaanal ci yàlla feebar bu doy waar la ñaanal yàlla yàlla teqal la moom li annahu yuqiu fi xirmaani nit ku yàkkamti foo ko fekk lu muy wut bala ko am ñàkk ko du sotti projet bu mu lool sax balaa sotti résultat ba di ñëw dana yàkkamti ba projet ba mujj yàqu loolu lépp ci yàkkamti kon feebar la boo xam ne baaxul war sa amin day taxit nit ki découragé maanaam bu fekkee yow dangay ngaa yàkkamti loo taabal yi du egg da ngay dem ba mujj yàgg dootoo jéem dara da ngay dem ba ne ah man day bay boo bàyyi ndangam tàmbali defoon naa ko fi sottiwut ndangam defoon naa ko sottiwut kon man léegi bay boo ma toog rek di di xaar wana demit da lay indil itam réccu rek waa ay siyaani ba tey ak mooy yàlla kon jikko yooyu nga xam ne yàkkamti dana ko jox nit yàlla nu ci yàlla musal parce que dalay sonal fii ci sa àdduna te mën na laa sonal fële ci àlaxira man ta anna naa la ma tamanna xukkamaa yi wax nañ loolu maanaam nit ki bu teyee rek lépp lu muy wut mu wut ko ci dal wut ko ci xel ànd ak sagoom te xam ne sunu borom bu ko dogalee nga war ko am danga ko am bu dogalee mu gaaw dana gaaw bu dogalee mu war a gaaw a sotti dana sotti nga nga nga nga ànd ak sa sago di ko wut ci sago danga ko am te boo ko amee ci bànneex nga koy am moo tax mu ne man ta'anna naa la ma na kuy def ndànk saa foo ko koo xam ne dafa teey foo ko fekk la muy wut ñaari dana sotti te dana ko am na nga ko bëggee kon loolu mooy feebar feebar boo xam ne mooy yàkkamti xirmaan sam nadam isyaan la lay indi al baabu salis fi mën nañoo dem ah xaj na fi al baabu xanaa say xaalis da ngeen a gaaw noppi tey a waaw loolu parce bu ñu dañ doon dañ doon mottali rek waaw dama lay dama lay jox léegi nga taalix déedéet baax na baax na ci doon maa ngi lay félicité bu baax démb déglu naa waxtaan wi ci jumaa ji tabaarakallaahu wallaay dëgg dëgg dëgg dëgg na ko defee yàlla na yàlla def ay nopp yu ko dégg te jëfee ko parce nag loolu maanaam wax nga li xew feebar bi xew ci dëkk bi mu bokk li koy fajit wax nga ko yàlla na yàlla fay te yàlla defal ñi ko doon dégg bokk ci alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yaclam xabaana allahu fi ddaarayni bifadlihi subhanahu nurayn bi ann xayra ma bihi izdaana alfata talaazumu ladabi xaysuma ata sëñ Tuubaa dugg na ci baabul adab nee na euh, euh, hmm, allahu akbar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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله wanfi lwabaa walbalaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha waaw professeur mufti firi na ko firi mu neex a neex a neex moo xam ne léeg-léeg dama koy wax bu ba lu am solo la kon loolu teyit li docteur yi di wax ñu fas yéene di ko def ndax mooy ndigalal sëriñ bi muy raxasu beeg masque yeeg ñàkk jaxasoo bi ci biir nit ñeeg nañu xam ne yooyu yëpp ñu koy wax njëriñu nit ñi képp tax ñu di ko wax waaw nañ fa yéene def ko ñu ngi ñaan yàlla jeexal ko fi tàkk balaa koor gee jeex mu jeex tàkk yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def kon sëñ bi jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha ci téere bu am solo boobu di masaale ko dinaa ñu ko doon topp fii ci daara ji naa dañu am ñaari laaj yu fi wàcc rek mu ne kii day laaj mu ne wóote si nekk si benn dëkk ndax xaajaloo la wala lislaam nangu na ko wóote waaw leeral la li nga wax ne ki day laaj mun a wóote ci um wala wori nekk ci benn dëkk ndax xaajaloo la wala lislaam nangu na ko xam nga am ñaari mooy wuute wute gi moom maanaam wute gi jëmmi wute gi moom du jàggee nii bu fekkee ne kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk fa nga sukkandiku ba bañ a fekki sa morom ca la nga def xam ne teg nga ko ci ay cëstaa yu wér loolu lislaam nangu na ko ndax wuute ci wàllu diine loolu moom yàgg na surtout ci masaayil yi nga xam ne tey yu mel noonu la lam wërta jur nag mooy ab xàjjalikoo nit ki mën naa wuute ak nit ki mais wuute gu jur ab xàjjalikoo nag moom lañu mën a war war a man a moytandiku loolu nag mooy kenn ku ne ñàkk warmaal sa morom ca la mu ne man mi nga xam ne dama jàpp ne kat lii ma gis doy na ma kooku awma sañ-sañu maslaa wala toppandoo waruma maa yóbbe ci loolee ma jàpp ne doy na ma mooy bàyyi ko di def lu ma doyu waaye ki nga xam ne lii doyu ko maanaa doyu ko moom xelam dalu ci doyu ko kooku it maslaa e eh, wóoru koo yóbbe ci muy def loo xam ne doyu su ko defee ñoom ñaar ñëpp nag comme kenn ku nekk lislaam loolu la la sant li ngay def da ko def looy bu kenn ku nekk jàppee la ci des nag ku nekk rafet njortu ci sa morom xam ne ñaar ñooñu ñëpp kenn ku ne ijtihaad la maanaam ijtihaad fi fahmi nassi wala ijtihaad ci boppam ci tarjiix li nga xam ne jàpp nga ne moo gën a doy doy sa xel wala ijtihaad ci gannaaw boo dajalee addila yi nga am yëpp nga seet la la gën a doy yonent bi yàlla yónni ci ñun nag dafa wax ne ki def ijtihaad su dëppoo ak la nga xam ne mooy la am fa yàlla yàlla dana ko fay yoolub effort bi mu def pour def ijtihaad su yàlla dogalee it mu juum muy loola dëppoowut ak la wér fa yàlla du tee yàlla moom yéeneem ak bëgg a dakk ak njub yàlla dana ko ci fay kon ñoom ñaar ñëpp tey kenn ci mën a am dëgg waaye ñoom ñëpp tey bu fekkee ne par par loolu lëlu ko fanatique lalu ko lu may gëstu dëgg rekk ko lal kenn ku ci nekk la nga nekk lu dëgg la lu wér la kon wërta jàqalee seen diggante la ci des war nañoo war maalante seen biir jërëjëf ci tontu bu am solo boobu ba tey kii day laaj mu ne dafa am ngànt ci koor ñu wa ñu aaye ko mu woor ndax day joxe mudd tamit ndax bu wéree daa war a fay koor gi ak mudd na lañ koy génnee waaw mi aju ci xam nga euh, fekkee ne moom ngantul koor li moom feebar la kooku alquran ci boppam moo ko wax képp koo xam ne danga wopp wala nga nekk ci tukki danga xam ne wopp sii nga wopp mënoo ko boole ak koor ndax saay bi loolu yow yaa ko xam benn yow yaa yëg ne mënoo ko boole ak koor wala médecin docteur moo gis ne kat wopp si déggoowul ak koor lu mu ci mën doon lu ne lislaam da may nga baña woor ba koor gi jàll bu koor gi jàllee nag bu dee ku wopp maanaam wopp sa jaaran sa diggante ak koor su wéree da ngay su fekkee nag wopp sa day wopp su continuer soo xam ne mënee su ko boole xam ne moom yow mënatutoo woor docteur yi nee nañ mënatutoo woor foofa nag lañu taamu ko wóoroo maanaa bis benn bu nekk nag nga leel maanaam miskiin lu ko mën a dogal loolu lañ digle ci ki nga xam ne tey dafa am lu jaar diggam ak koor léegi kooku moom lañu sant muy def itam ah, ah, mu mu génn waaye rek su fekkee ne eh, koo xam ne tey eh, eh, la ko teewan a woor jàll na ba mu fay kooku du du du du def du def du def itam naka noonu bu fekkee ne tukki ba it noonu la tukki bi yow yaay xam tukki bi su fekkee ne maanaa eh, mën naa tukki la boo xam ne jaar na sa diggante ak ak ak ak woor métti na métti waay boo xam ne ak tumalaanke nga mënoo ko may nañ la lool mais boo ñibbisee eh, da ngay day mais su fekkee na fa nga nekk na condition ya nga fa nekke maanaa wax dëgg yàlla mën naa am sax moo dàq yi nga nekk fii yaa sa hôtel restaurant yaa ngi nii amuloo benn problème kooku nag bu anta soo ma xëy nag kon yàlla boo mënee woor moo gën ndax moo la gën a noppal sax hmm. nit ba koor gi ñëw ngay fayal hmm. jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu bu am solo boobu xam naa rek ci profité di leen sant bu baax di leen ñaanal suñu borom yàgg leen fi di sant rek di leen fàttali programme suba bi di vingt cinq ramadan ñaar fukki fan ak juróom ci weer ramadan ñu koy ànd ak Oustaz Assane Diouf ak sëñ Moustapha Diatara Oustaz Assane Diouf mi ngi ñëw ci Sikar ci Tarbiya Mouride sëñ Moustapha mi ngi ñëw ci Wirdul Maxuus kon bu ko defee mën ngeen ko bàyyi xel ci fi ngeen ko baaxoo bàyyi xel ci Touba Vision en direct ci académie Minane ci Bichir TV ak Mouride TV kon bu ko defee ba suba ak jàmm. incha allah wax waa Touba TV ñu ngi wax ne doo leen tudd mais doo leen tudd. waa Touba TV jërë ngeen